Euh, di nuyu rek mbokki internet yi combat bu mag bi nga xam ne ba mu taxawee ba léegi coow li bëri woon na ci kañ lay am ak kañ lañ koy régulariser yàlla dogal na régulariser nañ ko léegi diggante Boy Niang ak Tapha def nañu jàkkaarloo yu bëree bëri bi ci mujj Joal la toj nañ ko coow li bëri lool ñi naan dana am ñii du am. waaye yàlla def na régulariser nañ ko combat bi ma nga waroon doon le 8 août fii ci arène nationale di gërëm nag lool Mor Mbaay mi nga xam ne moom moo moom date bi bokkoon ci ñi nga xam ne saison daaw dañoo dese woon combat te ñoo ñoo amoon priorité jëkk a jël date suñ paree kuy jël doo ko jël mais ci baaxam bi cali soxlaa date bi tegu ci benn condition daf ko ne yow suma frère nga suma xarit nga boo soxlaa date bi dama la koy jox. moo tax sax bu nit ñi déggee ne jël nañ datu la huit août dana leen jaaxal ndax même ñi ñi njëkk a ñëw ñii vingt deux août dañu jël ñii jël quinze août ñu ni jël la huit août yàlla def na régularisé nañ ko léegi kon rendez-vous bi Boy Niang Tapha Tine le huit août lay doon kii moo ne woon càpp kii mooy càppaacoli kii ne ñor tab bi kii ne saakaande ñi doon wax kañ lay doon rendez-vous bi le huit août la ñàkkoo ko teewlu dara wóoru ci ñu ànd ak promoteur bu mag bii di Thialis ndax moom yàllaa def boolewul daraa ki wax mais lu muy def rek da ciy dem ba jeex kon ñàkk ko teewlu dara wóoru ci rendez-vous bi la 8 août la fii ci arène nationale booy Niang Tapha Tine officiel na jërë ngeen jëf.